coronavirus bi ak jàmmarloo bu am diggante Russie ak Ukraine ba tey bi di jànkoonte lay jafe-jafe ngir tegu ci yoon gi mu newoon croissance bi yokku woon na ci atum 2022 waaye jamono ji dafa wàññeekuwaat euh, ci niveau mondial bi ñu ngi jógee ci dem ba ci euh, amaana sax euh, dina gën wàcc ci atum ndax ñu ngi koy xayma ci pour cent. rapport bu FMI bu ñu jagleel yokkuteem koom-koom gi ak prévision yañ cay def wone rek ni koom-koomu réew yi am doole yi wuute na lool ak yeneen dëkk yi ca des. Euh, maintenant cette croissance euh, est un peu inégale. dans la mesure où croissance bi daanaka tolloowul ndax euh, bu yenn dëkk yu am doole delluwaat ci croissance bi ñu nekkoon laata Covid bi di ñëw am na yeneen dëkk yoo xam ni jamono ji ñoo ngi ca ginnaaw. Euh, de pays en développement restent encore euh, derrière. Euh, avec un besoin de rattrapage. ci biir rapport bi la Fonds monétaire international joxe ay tegtal ngir réew yu gën a néew doole amal ay politique yi nga xam ne ni mooy tax ba ñu gën a mën a sukkali seen koom-koom. dans le rapport on on, on met l'accent sur l'importance d'abord rapport bi dina tax ñu dut baaraam ci njëriñu jubbanti inflation bi. te itam dina tax politique budgétaire yi teg dina tax ñu euh, gën a yamale bor bi. Euh, que les politiques budgétaires qui euh, qui sont maintenant mises en place euh, permettent d'assurer une stabilité de la dette à long terme. ci biir rapport bi le ñu mën cee nemmeeku it ni que ni inflation mondiale bi dana dellu gannaaw jóge ci huit virgule sept pour cent ci atum deux mille vingt deux ak six virgule neuf pour cent ci atum deux mille vingt trois egg ba cinq virgule huit pour cent ci atum deux mille vingt quatre